wajaxal kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi mag leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baax yi ci jataay bi waaye di ndokkeel bu baax itam suñu mbokk sëriñ Cheikh Sylla Talib ci liggéey bu réy bi nga xam ne sottal na ko ci xam-xami tasawuf ak ay nitam ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi te fay ko ci ngën ji fay te jeexit ji àgg ci mbooleem jullit ñépp ak doomu aadama yépp ngir njëkkanteeg waxtu wi dañuy wax lu gàtt ci at tasawuf wa asbaabu gurbatihi fi xayaati naas jëmmi tasawuf mooy lan dëgg-dëgg te loolu moom la sëriñ Cheikh di jëmmal ci téere bi ci anam gu mucc ayib te rafet lool te jotal waaye lan moo tax nit ñi desee dund tasawuf dese ko jublu léeg leek lan mooy asbaab yooyu lan mooy sabab yooyu loolu it dana ci ñëw ci kem li waxtu yu maye tasawuf ci gàttal rek mooy li gën a kawe ci dundu lislaam waaye ñi koy tuddoo ñoo ko xajamal léeg-léeg ñoo koy xajamal léeg-léeg mu am ay nooni boppam yoo xam ne ñoom dañ ko noonu rek te yàlla tax ci lu dul benn sabab ñooñu it di leen sànni xeer ak di leen waxal wax yoo xam ni la ci ëpp du demee nañ koy waxe waaye gàttal gi mooy tasu mooy buntu mucc moo lay may muccuk àdduna ak àllaaxira di la may xol bu jag bi nga xam ne boo ko yóbbaalee ca sunu borom tabaaraka wa taala doo fa am benn jafe-jafe tasawuf alquraanul karim moo ko jàngale léeg-léeg di ko tudde tazkiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di tuddee ummu sunna mooy xadiis sayidna omar ñeneen di ko xadi xadisu jibril alayhi salaam bi mu ñëwee di laaj yonente bi lan mooy imaan ak lan mooy islaam ak lan mooy ixsaan yonente bi tontu ko ca ba noppi ca mujj ga mu wax ne fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum jibril moo ñëwoon di leen xamal seen diine boroom xam-xam yi balluloo ci ne kon léppi diine mi ngi ci xadis boobu da ko njëkk lan mooy islaam ñu xamee ni islaam kon mooy wet gi jàngale jëfi kaw yi ak yi cër yi jëf ci xeeti jaamu yàlla julleek woor ak asakaak xaj makka ak jëflante bi muamalaat lu mel ne jaay ak jënd ak takk soxna ak ya ca aju yooyu islaam moo koy jàngale boroom xam-xam yi tuddee ko al ñi koy gëstu ñu leen tuddee al fuqaha sayidna jibril laaj ko beneen laaj lan mooy iimaan yonente bi tontu ko ñu déggee ci ne kon xam-xam boobu yi moo lay jàngal li aj ci ngëm nga xam ne mbirum xol la naka ngay gëme yàlla ak mbooleem la aju ci sunu borom ak malayka yi ak téere yi ak yonente yi wàcc akub dogal ak yi ci aju loolu it ba tey borom xam-xam yi koy jàngale ñoom lañu tuddee ulama u tawxid waaye ci biir xadis bi da laaj lan mooy ixsaan ixsaan boobu itam yonente bi tontu ko ne ko an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak wax ko ci ñaari maqaam yoo xam ni moom la tekkee lixsaan maqaamul muraqaba ak maqaamul mushahada fa in lam takun taraahu fay innahu yaraaka loolu mooy muraqaba mooy ngay bàyyi xel yàlla xam ne mi ngi lay gis di gis sa yëngu dara ump ko ci yow loolu jaam bi bu fa àggee dana bàyyi xel sunu borom tabaraka wa taala waaye lam njëkk wax mooy ka taraahu moom la gaa yi tuddee mushahada mooy lépp nga ci bàyyi xel sunu borom lu ci ne nga ciy gis yàlla mooy nga ci xam ne xam kattanug yàlla gi ak xam-xamug suñu borom ak xereñam gi ak ma ba ca ne te bàyyi ko sunu suñu borom tabaaraka wa taala loolu kon tasawuf foofii la la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallama dala jàngale waaye buñ boolee aayaat yu bari ci alquran ak ahaadis yu bëree bari dañuy gis ne ihsaan muy tasawuf ñetti xaaj la benn bi mooy sa digganteeg sa boroom tabaraka wa taala an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waaye beneen xaaj bi mooy sa digganteeg sa moroom sa moroomub jaam loolu sunu boroom wàccee na ci aay yu bari di wax ihsaan bi war sa digganteeg jaam yi moo xam say wayjur la wala sey bokki jege ñaale wala ay jirim sax wala miskin yi ak julit ñëpp ak mbindeef yépp kenn ku ne taxawaay bi nga war a am ci moom suñu borom jàngale na ko ne ci ihsaan la tàbbi ba ci liggéey bi ngay liggéey di ko liggéeyal sa bopp yonente bi sallallahu alayhi wax na ne inna allaha kataba al ihsaana ala kulli shay inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqina kon liggéey bi ngay liggéey loolu ixsaan da ca a feeñ ñett yooyu nag bu ñu àndee mooy ab mutasawif mooy ab suufi boo xam ni yitteem mooy dàkk suñ borom di ko bàyyi xel ci lépp di jëflanteek moom it ci lépp waaye ci biir jëflante bi muy jëflanteek suñu borom nag du neenal mbokkam yi nga xam ne ñoom la nekkal ci kaw suuf te loolu yemul ci nit ñi rek mboolem mbindeef yépp day jëflanteek ñoom ci biir jëflante bi muy jëflanteek suñu borom tabaaraka wa taala loolu nag bu àndee mooy ab jullit dëgg dëggi jullit bi nga xam ne moom la suñu borom soxla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon ci yar eh, saxaaba ya muy jëmm joo xam ne day nekk jëmm yërmaane ci kaw suuf yàlla rek lay jëflanteel lu dal ci kawam da ne yàllaa ko ko teg lu muy defit yàlla la koy defal jëmm jooju moom la yonente bi doon defar te mooy koo xam ne njariñul doomu aadama yëpp lay doon di njariñul mbindeef yëpp loolu buñ seetloo ñoo ñi nga xam ne mooy na sunu borom da leen digg ay digg yu baree bari mooy loolu yi buñ ca saxee te dëggu ca boole kook jihaad ak seen bakkan ba génne mboolem taq-taq yi ci biir bakkan bi dugal ca mbooleem jikko yu baax yi da di jureel jural coofeel gu rëy goo xam ne moom nañ yëg seen borom yëg seen diggante ak seen borom mooy mahabba mooy dañuy bëgg yàlla yàlla it bëgg leen gis nañ suñu suñu borom ci alxuraan wax na ba tey inna allaha yuhibbul muhsinina wallahu yuhibbul muhsinina ay yoon la wàcc ci alxuraan ci suratul baqara suratu ali imran ak suratu maida inna allaha maa alladina taqaw walladina hum muhsinuuna nga xam ne yàlla day ànd ak ñoom ci lépp ci waxtu wu ne maaya xaasa boo xam ne bokkut ak bi mu ànd ak ñëpp mooy wa huwa maakum aynama kuntum inna allaha la yudiu ajra al muxsinina wa bushra lil muxsinina ay bushra yaatit dañuy dajeeg moom gis nañ ca xadis ba yonente bi sallallahu alayhi wa bi ci euh, saxiix as saxiix buxaari muslim mooy wax ne fa ida ahbabtuhu kuntu samaahu alladi yasmau bi wa basarahu alladi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha yooyu yii nag nga xam ne moo leen di feeñu léeg-léeg moo leen di jural jafe-jafe ak ñeneen ndax lañuy xam nit ñi duñ ko xam la ñuy nit ñi duñ ko yëg fa fa ñu la ñuy bëgg itam nit ñi duñ ko bëgg moo leen di jural ak tumuraanke itam ci biir nit ñi ñu nekk ci seen bi biiri réew seen yi dëkk seen biir yi bokk ba pare tumuranke nag ndax ñi leen ñi ñi mën a àgg ci melowoow yi day néew kon ihsaan lu yaatu la suñ boroom da koo digle ci alxuraan ci bërëb yu euh, fasanti ko wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ittibaa sax ihsaan da ciy feeñ waabudu llaha wala tushriku bihi cheyan wa bilwalidayni ixsaanan mooy sa diggante ak say waajur idfa billati hiya ahsanu sayia wa qulu linnaasi xusnan muy dem rek ba ci jëf ji ngay jëf li li alladi xalaqa almawta walxayaata li yabluwakum ayukum ahsanu amalan ixsaan moom la borom nit yàlla yi jëmmal wutal ko xam-xam boo xam dafa am ay mustalahaati boppam am ay téere yi boppam am ay borom xam-xam yu koy jàngale ñu ñu tudde ko nag léegi tasawuf ñi koy jàngale ñu tudd leen as-suufiya te waaye mooy ihsaan rek al muhsinuun bi nga xam ne moom la sunu borom di wax ci alquranul karim nga xam da leen a dig lam dig yónente ya mooy boole leen ca ca yéegal leen ca yónente ya ulaayika alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai salaamun ala ibrahima kadalika najzi almuxsinina salaamun ala ali yasina inna kadalika najzi almuxsinina waaye loolu la wax ci muxsinuuna itam lahum maa yashaauna inda rabbihim dalika jazaau almuxsinina loolu mënoon nañ cee wax lu bare bari waaye loolu góor ak jigéen ba tey ñoo ci yem gis nañ soxna na bi sallallahu alayhi wa sallam bañ koy jàmbat bëgg mu yokkal leen euh, xéewal gëm leen di jox dépense bi sunu borom da leen wax ne wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara alaaxirata fa inna allaha aadda lil muxsinaati min kunna ajran azim azima mi ngoog tasawuf nag di xam-xam bu yaatu xam nga ki nga xam ne dub docteur yow jëngoo dara ci médecine maanaam waroo wax ci wàllu googu yow danga war a noppi buñ ciy wax. fiq itam xam-xam la boo xam ne am na ñu ko yittewoo mu am ay téere boppam am ay delluwaayu boppam am ay jaaruwaayu boppam loolu it ka ca xamu dara da caa war a noppi tasawuf it noonu la dafa am ay téere boppam sëñ sëñ Cheikh Sylla na ci lu bëree bëri ci delluwaayu tasawuf ñu am seen yooni bopp seen borom xam-xam bopp ak seen règlement yoo xam lépp dañ koo balluloo ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëfi yu baax yi jiitu woon loolu it xam la boo xam ni mooy lijjanti mbirum biiru nit ki Sëñ Tuubaa wax na ne al ilmu inda al ulamaai yanqasim li dahirin wa batinin sirran kutim dahiruhu al muslihu lil aamali wal batinu al muslihu fa awalun bismi tafaquhin dui wa thani anhum bi tasawufin wui jëfi kaw yi li koy lijjanti mooy xam-xamu fiq xam-xamu sharia waaye biir ki nag mooy sa ak jikko yu bon ya cay bóof su bon tuddee ko baatinul ismi wa daru zahiral ismi wa baatinahu baatinul ismi boobu nga xam ne moo gën a rëy zahirul ismi ndax boo juyoog eh, li sariya tëral fii lañ lay dumaa moom waaye sa xol nag bu juyoog xam-xam boobu ak jëfi xol yooyu nga xam ne yittewoo ko ba rëy ak yi ni mel dëkke sa xol loolu ëllëg ngay am jafe-jafe da dem yóbbaale fa xol bu taq boo xam ni danga nga rëccu moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne wa man yakun bi saani da ixlaali yëhlik gadan bi xukmi dil jalaali <coughs> kon loolu mooy gàttalu tasawuf xam-xam la boo xam ni day dugal ci yow jikko yu baax yëpp ginnaaw génnee ci yow jikko yu bon yëpp moom la wax taxliya taxal lii mooy jiitu mooy jikko yu bon yi nga génne ko ci sa biir lu mel ne rëy naw jëf woru yëg sa bopp nay ak mer ak ngistal ak bëgg mooy yàlla ak bëggu payantoo ak coxar ak kiñaan yooyu nga génne ko ci soxal loolu moo ñuy wax taxal lii taxal lii moo ci topp taxal lii mooy nga dugal nag jikko yu baax yi mooy dëggu ak gëm yàlla gu wér ak yaqiin ju wér ak sellal ak xam yàlla ak wakiirlu ci moom ak bëgg ko ak gërëm lépp lu bàyyi ko fi suñu borom ak tudd yàlla ak sant ak tuub ak ragal yàlla ak yaakaar ko xeet yooyu itam boo ko tàbbali sa biir ci la tëjal lii di am mooy leerug yàlla tàbbi si awa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas leer googi nag moo leen di jëral la yonente bi wax ittaqu firasata al mumin fa innahu yanduru bi nuurillah xam ki nga xam ne yanduru bi nuurillaahi moo tax tasawuf njëlbeen gi duñ am ak jafe-jafe fuqahaaw yi benn yoon ndax njëlbeen gi dox la bu tegu ci sariya ju leer ju tegu ci alxuraan ak sunna waaye nag may yaleen sunu borom di may nag ak yëg-yëg ya nga xam ne mooy yëg mooy feeñ ci ñoom loolee mooy indi jafe-jafe waxtu ne te loolu borom xam yi joxe nañ ci yoon yooyu nëbb ko lañ ci digle ak bañ koo fësal ak mu diyam ci sa diggante ak sa boroom kese ndax day loo xam ne secret la boo xam ne suñu boroom moo la ko jox te suñu boroom bëggul kuy feeñal ay secretam muy lu teel a feeñ itam ibnu xaldun ci ci muqaddimaam bi wax na ne la saxaaba ya nekkoon tam a nekkoon ca ak saxaaba ya ginnaaw ba taabiun yi nekk ci seen ginnaaw adduna dafa ñëw dugg si futuxaat yi am xéewal yi bari nit ñi wuti àdduna bàyyi la yonente bi nekkoon ak saxaaba yi ña ca desoon nag nee na ñooñu ñoom lañ tuddee as-suufiya wal mutasawifa loolu mi ngi ci muqaddimatu ibnu xaldun wax ne wa kaana dalika aamman fi saxaabati wa salafi fa lamma fasha al iqbaalu ala dunya fi al qarni athani baadahu wa janaxa ila muxaalatati dunya ixtasal muqbiluuna an ibada bismi suufiya wal mutasawifa suufiya tasawuf mooy li fi yónente bi bàyyi woon rek ca la yónente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon yónente bi mooy as suufi al awal sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ku ne xam na ne fiq ak yooyu yëpp jamono yónente bi xam-xam bi ña ngi ko doon dunde waaye mustalahaat yii ñu ci sos nii amul woon amul woonu tur aqida dañ koy wax waaye ruutul fenn ci alquran ak ci sunna si yónente bi sallallahu alayhi wa sallam tur yooyu ginnaaw bi lañ ko sos waaye nag la muy wundu ma nga fi woon yonente bi doon ko dund ak saxaaba ya ak eh, gaañu baax ña borom al lumma muy ak tuus yi wax na ne sufyaanu sawri nga xam ne mi ngi génn àdduna téeméer ak juróom benn fukk ak benn daana wax ne lawla abu haasimin suufi maa araftu daqaiqa riya nga xam ne kon kii moom mi ngi mi ngi génn àdduna ci xarnu ba xarnu ñaareel ba ci téeméer ak juróom benn fukk ak benn te teewul mu xam li ñuy wax ab su a suufi ne lawla abu hashim suufi maa araftu daqaiq riya alxasanul basri moom moo ko njëkk a génn àdduna moom téeméer fukk ci la génn àdduna te teewul mu wax na ne raaytu suufiyan fi lmataaf fa aataytuhu cheyan fa qaala maay arbaatu dawaaniqa takfiini yaa ne booba suufi moom tel naa feeñ teel nañ ko wax itam tasawuf yi dafa am ay usul dafa am ay cosaan yoo xam ne ca la loolu sëriñ bi leeral nañu ko wax ne mooy mooy ci alquranul karim ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi ak bay topp bànneex ak bay bidaa yi mboolem bidaa yëpp bidaa nag buñ ko waxee mooy al bidaa al istilaahiya waaye wax sunna xasana boo xam ni lu sax la nekk noonu warmaal sëriñ su baax si si ragal yàlla ak gisal ñëpp ngant nga xam ne yow sa sikki bopp rek ngay gis waaye bul gis sikki keneen loolu ci cosaani tasawuf la bokk usuli tasawuf ci la bokk a suufi sikkam lay gis waaye du gis sikki keneen dana laabire waaye day dogal ñëpp ngant itam mbir mu ne da koy mu baax teewil bu rafet ba tey bokk na cosaani tasawuf mooy saxal wird ak moytu mboolem yomb yomb yi yi di juyoog sa bakkan di def yi nga xam ne sa bakkan bëggu ko nga di ko ca forcé ngir jihaad ak moom te loolu lépp suñu borom a ko digle subhanahu wa taala am na feneen fu ko sëñ bi lim da caa yokku xaq yi dox sa diggante ak sa borom ak yi dox sa diggante ak nit ñi nga fexe ba matale ko ku am xaq ci yow nga jox ko ko ba mat sëkk ak saxoo tuub ak bañ a benn mbindeef waxuma doomu adam waaye mbindeef rek bu ko lor moo tax suuf yi ñoom melentaan sax duñ ko rey ci lu dul sabab tasawuf ba tey dafa am ay ponki boppam yoo xam ni comme euh, mbaar mi kenn yii ko téye dafa am ay kenn yoo xam ne moo ko téye yooyu it Sëñ wax na ko wax ne arkaanuhu naarifu minha sabaa sumtan wa juuan wajtinaabal bidaa wa tawbatan wa sëhëran wa uzla summa istiqaamatan fa fan xas la la ca jiitu mooy noppi ab suuf yi foo ko fekk du wax lu dul wax ju am njariñ saa yu njariñ saa yu wax noppee am njariñ mu noppi du waxi larax du nekk ci garam place du jëw du rambaaj du wax lu amut ab suuf yi itam day ñëwee xiif ndax xiif masalan mi nga waxtu bi mel na ne mi mi ngi dem waaye kon loolu mooy ponk tasawuf xiif ak moytu bidaa ak euh, fonk tuub ak fonk xiyaamul layli ak léeg-léeg nga beru ngir wéet sa borom ak sax def ci istiqaama mooy sax ci yoonu sunu borom ci njub te bañ ko wàcc mukk ak ragal yàlla ci lu fés ak ci lu nëbbu loolu sëñ Cheikh indina ko ci anam gu rafet ci njëlbeenu téere bi xëy na duñ ci mën a taxaw ndax euh, waxtu wi dem na ba tey ci tasawuf mën nañ ne léeg-léeg nag jafe-jafe bi mooy <clears throat> li tax mu tumuranke mooy dafa neexul ci bakkan tasawuf li muy jëkkee yow mooy fexe ba sa bakkan bii nga fereel ko dog li ñuy wax aqabaatu nafsi Sëñ Tuubaa dafa wax ne maanaam dara ci kaw suuf maanaam mënoo jariñu benn yoon moom li feeg jéggiwoo li ñuy wax aqabatu nafs walasta walaysa taxtawi l wusula lil jalil bi gayri qatci al aqabaati ya nabil aqabaat yi li feeg jéggiwoo ko mooy sa bakkan li feeg jéggiwoo ko mënoo am dara ci suñu borom sa diine itam du leer faw nga xeex ak sa bakkan xañ ko lim bëgg te neexul yàlla dox diggam ak topp bànneex dooga nag jariñu ci sunu borom tabaaraka wa taala Sëñ Tuubaa wax na nu yoon wi ñuy wi ñuy jàmmaarloog bakkan te mooy sëf ko lu lu ko ëpp doole ci ay ci ay topp yàlla xañ ko yitam ay shahawaatam mooy ay bànneexam ba pare dimbali ko sunu borom tabaaraka wa taala waaye sarti dog euh, euh, aqabaatu nafsi yooyu noonu sikki bakkan yooyu ngir teqalikook moom charte yi borom xaram borom xam-xam yi tasawuf yi leeral nañ ko sëñ sëñ Cheikh utal na ko sax buntu suruutu yi mu wax ne suruutu ak tasawuf yaakaar naa la ko tudde wala yi deme demee mooy lu mel ne noppi xiif xiif ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi mooy bidaa bi njëkk a feeñ soxna Aïssa loolu la wax ci borom almatalibul aaliya wax na ne soxna Aysa daan wax ne maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa xamisul batni lekk ba suur ni ko sëñ bay jaxate waxe lekk ba sa kol li saxar xam nga loolu ci ci diine ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne biddaa bi njëkk feeñ mooy loolu ak ñime qiyaamu layli ak yi deme yooyu mooy yii dog aqabaatu nafsi ak tudd yàlla gu bari ak euh, sa biir ak sa biti di benn ak def loolu mu njëkkoon wax mooy taxliya teqalikook jikko yu bon yi ak dëddu àdduna masalan ci tasawuf la bokk te ñu bare bari jëkkuñu ngir teqalikook àdduna loolu indi na tumuranke itam li tax tumu tasawuf ñu bari dundatuñ ko sawaratuñ ci mooy tasawuf dalay yóbbu ci nga dëddoo àdduna yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ci mu jëm xadis muttafaq alayhi dafa wax ne wa inni lastu axsa alaykum an tushriku walakinni axsa alaykum dunya an tanafasuha moom àdduna rek la ragal ci noonu waaye ragalul sax shirk ginnaawam àdduna soos yi nag dafa mujj ubbiku ci kanam jullit ñi ñu nekk ca ngir dëddu adduna soosi nag wan ko ginnaaw te man koo jariñoo te am ko boole ci loolu la tasawuf di sóob euh, julit bi loolu moo tax ñu baree bari tasawuf duñ ci gaaw a sóobu wala boog du leen jubu ndax adduna ci nga xam ne moo dëkk seen xol tasawuf ba tey dalay jàngal ixlaas mooy sellal boo xam ni li ngay def di ko def ci ay jaamu yàlla doo ci séentu lu may man doo ci séentu dara lu may ne da ko war a def di ko def rek te suuf ci ngay gis ñoo xam ni ñoom jëmuwuñ yàlla ngir bëgg àjjana wala ngir ragal sawara laysa suuli min aljinaani naiman gayra anni uhibbuha li araaka danañ ñaan aljana waaye aljana fa lañ mën a gisee suñu borom loolu moo tax ñu koy ñaan waaye li ñuy def bëgg àjjana taxul ragal sawara taxul ixlaas boobu yi nga xam ne da ngay jaamu yàlla ngir ne yàlla dafa yeyoo jaamu kese doo ci dàkk dara lu mu la ca fay itam nga xam ne loolu ci mbaaxam rek la ko defee ixlaas bu mel noonu moom la tasawuf di def ci nit te loolu it yombul moo tax bokk na ci saw bi tumurankek tasawuf bokk na ci saw bi itam mooy tasawuf da lay sóob ci woyof ak fàtte sa bopp te loolu ñëpp jékkuñu ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir nekk ci loolu tasawuf Sëñ Tuubaa ba koy gàttal ca masaalikul jinaan da wax ne kal ardi yurma fawqaha kullu qabih wala min batniha illa malih yata'uha alkarimu wallaimu walbarru walcaasi wa tastadiimu wa kasahaabi fi dili wa bila istisnaai wa man yakun kadaka fa huwa suufi aw laa fa du mel ne amee jikkoy suuf suuf lu waaye buub xëpp ci kawam te boo gasee ci biir gis fa lu baax luñ mën a jëfandikoo dangay ngay mel ne taw bii soo demee bay bay am njariñ looy joxe bul ci seet kii wala kaa jariñal ñëpp rek bul seet kii jullit la wala yéefar la wala murit la wala tijaan la wala sénégalais la wala malien la wala fu mu dëkk jox ko te yàlla tax nga xam ne yow yàlla ngay jox loolu nag ak melo yi ñëpp jékkuñu ngir jëfandikoo ko yeneen ak yeneen am na ma waajaloon naa leneen lu ëpp loolu waaye gàttal gi mooy waaw waxtu ja daal mi ngi noonu lu leer la mooy yoonu mucc mooy yoonu am xol bu mucc mooy yoonu xam yàlla subhaanahu wa taala xam-xam yëpp boo gisee mën nañ ne fii la yem ba mu des xam-xamu tasawuf loolu ñëpp duñ ko mën a dégg waaye ku mel ne imaamul Ghazali masalan da lay wax ne xam-xamu fiq da koy boole ci al ulumu dunyawiya te loolu yomb dégg la dafa am xam-xam yoo xam ne yu am njariñ la yu mënta ñàkk itam lu mel ne médecine faju ak këri fajukaay yi mënta ñàkk ci kaw suuf waaye bu ñu demee yomal xiyam amatu fa njariñ ndax foofu feebar amu fa kenn du feebar fiq itam ñoom dañ lay wax ne ci xam-xam yi ulum dunya la bokk ndax fii dañ ko aajowoo julleeg woor ak ni ñuy ni ñuy takkee soxna ni ñuy jaay ak ni ñuy jënde loolu fii lañ ko aajowoo yomal xiyam yooyu amatu fa aljana yooyu amu fa xam-xamu tasawuf nag mooy xam-xam bi lay jàngal sa jëmmi sunu borom tabaraka wa ak li ni nga mën a doxee li lay jural bëgg ko te bëgg ko mooy warakaay warukaay wi gën a gaaw ci dox jëm ci yàlla moo jural nga seey ci moom te loolu bu amee moo lay jural sunu borom nag soppal la boppam xéewal yi ñu doon wax yépp nag fekk si la loolu nag dox la boo xam ni du bu yomb dëppoo wut ak bakkan loolu moo tax mu tumuraanke ci biir nit ñi tey ak ñi nga xam ne ñoo ko xamul di ci wax ak ñi koy tuddoo ak ñi nga xam ne dañoo noonu tasawuf ci lu benn sabab loolu lépp jur na itam tumuranke ak tasawuf ak topp bànneex gu yaatu ak bëgg àdduna te suñu borom waxoon na ne wala tattabii l hawa fa yudillaka an sabilillah waaye yonente bi sallallahu alayhi wa ñoom bégal na leen ba tàyyi ci tumuranke googi sayiduna abdullah ibnu omar foofu laay jeexale wax na yonte bi ne ko kun fi dunya ka annaka garibun aw aabiru sabil wa udda nafsaka min ahli alqubur loolu mooy suufiyanke yi adduna dañ fi ne tumuranke lool kenn du leen xam ñëpp leen saboté ñi dëddu sax da ngeen gis ñu tudd leen ay dëddu nangam nangam waaye ñoom ñooy ñi yàlla euh, gën a bëgg ci jaam ñi nga xam ne seen diine ni ko yonte bi waxoon kal xaabidi alal jamri dañuy mel ne ku yoru xal ci biir nit ñi waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallama daana wax ni rubba axbara di timrayni laa yuhbau lah law aqsama ala llaahi la abarrahu yor seeni mbubbu yu woyof te ñoom rek la yàlla déglu yal na yàlla boole ci ñooñee dundalaat ko ci suñu xol wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.